damay tàmbali bi ñu waxtaanee ba noppi di sant di gërëm ñi nga xamante ni yëpp teewoon nañ fi tey ci waxtaan wi nga xamante ni moo ñu dajale. solos waxtaan wi leeral naa ko léegi mooy euh, ni ñu ko code électoral bi sante dajale mbooleem ñiy yëngu ci langue politique bi. moo xam dañu bokk ci coalition moo xam dañu bokk ci parti wala dañu bëgg demal seen bopp ci ay jongante déglu leen taataan seen xalaat ci li jëm ci wàllu caution bi ñaata lañ ko ñaata lañ ko war a fixé laata ñuy dem ci élection yi te loolu code bi dafa wax ni euh, gën gaa sori téeméeri fan ak juróom fukk laata ñuy yegg ci élection yi nañu wax ñaata la waxtaan wi nag dafa lalu ci ñaari mbir bi ko njëkk mooy suñu réew xam nañ ko réew la bu yàgg diisoo réew la bu yàgg di waxtaan rawatina ñi nga xamante ni ñu seq langue politique bi ci suñu cosaan ak ci suñu histoire déggoon nañ fi sax code consensuel laata code consensuel bi bu ñuy dem ci jongante wala bu ñu nekkee ci langue politique gi nit ñi mën nañoo bañ a bokk xalaat te loolu la ñuy xaar sax ci waxtaan woo xamante ni dafay am jëm ci lépp lu soxal réew mi waaye saa yu waxtu jotee ngir ñu toog sottante xalaat bala ñuy jël décision saa su nekk dañ ko mës a def fii ci biir réew mi kon li nga xamante ni ci la lalu mooy waxtaan yu bi ci njëkk mooy loolu nga xam ni dafa bokk ci suñu cosaan mooy toog di diisoo ak di waxtaan ci lépp lu soxal réew mi ñaareel bi nga xamante ni ñaareelu poñ bi nga xamante ni si la tegu mooy loi bi moo ñu ko sas muy article L 175 ak R 80 bu code électoral damay rafetlu nag di jaajëfal ñi fi jël kàddu ñëpp ak bépp position bu ñu mën a am ndaxte bi ñu jëlee kàddu teg nañ ko ci xalaat bu rafet ku ci nekk wax nga li nga xalaat ni moom la ñu war a fixer caution bi comme montant te génne nga ay argument yoo xamante ni argument yu leer la tegu na tamit ci li nga xalaat li nga yaakaar ni buñ ko defee dina jëmale ni ñuy doxalee élection ca kanam ñi nga xam ni tamit moom nga représenté fii wax nga lu tax ñu yaakaar ni buñ ko defee noonu mooy li nga xamante ni mooy gën ci réew mi loolu yépp nag richesse la ndax euh, diversité wu idée duñ ko jàppee lenn lu dul richesse du opposition diggante ay position waaye au contraire loo xamante ni la dafay gën a rafetal suñu nekkin ci biir réew mi ci wàllu démocratie ndax diversité boo gis doo ko jàppee luy wàññi waaye da koy jàppee luy yokk ma bëgg leen ci jaajëfal rafetlu ko lool beneen rendez-vous bi nga xamante ni am nañ ko bu ci yàlla àndee mooy dinañ siiwal dogal bi nga xamante ni mooy tukkee ci lii nga xamante ni mooy waxtaan yu ñu amoon tey maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.